Touba ca kanam Touba univers management commune bu Touba mosquée boutique Total kër Xaadim Sylla et frères ONG Eulo Café ñoo leen di ziar Sarsara édition 2022 aousubillah bismillah inna waliyallah aousubillahi min asheytan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk jullit yi mbokk nga xam ne yéen ñu ngi bàyyi xel nuyu nuyoo bi yàlla ci diggante jullit bi ak mbokkum jullitam muy wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu jiital sunu biir nuyu ak sunu ziar sahibul fadila jàmbaari lislaam Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal yal na yàlla wéral ko lool te yàggal ko fi ci barkeb lislaam noonu lañ koy ñaanale mboolem umma islamique. waaye mbokk yi amaan mbégte nag di siyaare bu baax soxna maam Issa Mbacké njiital fédération Ahlu Café mi nga xam ne moom lañ toogal ni ci jotaay bi di sant it di gërëm Serigne Abdoulahat mi nga xam ne moom lañ mel ne mbokk yi spécial plateau la boo xam ne dañ koy waajale màggaluk Sarsara Sarsara nag at mu jot nu kook soxna maam Issa Mbacke eh, njiitu fédération Allou Café mu def ci taxawaay yu rafet ren nag mu mel ne itam eh, presse bi nga xam ne ñooy ànd ak moom liggéey bi am nañ ci yaatal bu baax a baax ngir fas yéene ànd ak moom liggéey bi ngir xam gu nu xam aw doxinam ci tool bi loolu moo tax mbokki balaa nuy jàll itam danañ gërëm. partenaires yi nga xamne len ji ñomit ñew nañ and ak ñun liggey bi ñu ko garal nak soxna ci bu baaxa baax nga ñaanal len ndax wala fi ñuy wax ne ko bëgg mu bëgg la da nga bëgg lim bëgg ko bëgg lim bëgg mu bëgg la nga bëgg ta sun partenaires yi kat ñew nañ ngir and ak ñun liggey bi bokk na ci Touba Univers Management muy ño xamne ne ñew ngir euh taxaw fi taxaway bam solo bo xamne ay ndaw lañuy jël di len defal formation yu am solo yo xamne ku ca genn da ngay gennal diplôme bo xamne dañ la amal ndariñ dañ ci dik sax ci kanam tout inshallah allah ci ak yaatal waaye bok na ci itam commune bu Touba euh, nga xam ni ñoy yëngu ci lepp lo xamne dafa jëm ci dekk bi. waaye taxaway bu rafet biñ ci am taxna biñu bi sun waccay wi ñoom tamit ñu sawar lol ci ñu and ak ñun bok ci partenaire yi nga xamne ne ji nañu ci voyage bi nga xamne ko and ak yeen dem Sarsara euh, bok na ci wa Touba ci kanam ndax ñoom dañoy dañoo ngir saytu bëgg-bëggu askan wi waaye di xool lépp loo xam ne amal na njariñ doomu aadama yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bu sell bi di Touba wala lépp loo xam ne dëkk bi laaj na ko te seen man mën àgg ca ñu def ko yaakaar naa gis nga yu bëree bëri yoo xam ne ñu koy def yooyu daañu ci ñëw ci kanam tuuti incha allah ko ne ci itam euh, total kër xaadim total kër xaadim ñoom it euh, boo fa xasee dugg rek xam naa gaa yi ñu sant ndaw ak léeg ba dañ ko xàmmee baax a baax ndax jotaay la boo xam ne boo fa tàbbee rek Euh, xeeti berne yu baax a fa nekk yoo xam ne ko fa génnaale moom daal alhamdulilah rek moo ca topp. yaram kon euh, loolu moo nekk jotaay bi nga xam ne mënuñu leen woon a ñàkk sant balaa ñu bi ci jotaay bi xam naa dañ ci ñëwaat incha allah dañu lay bàyyeeg euh, kàddu gi nga nuyoo Mbacke Balla. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. bisimilah inna waliyallah ma tawfiq illa billah ginnaaw mi sante yàlla. سبحانه وتعالى جلي شي يونتبي صلى الله عليه وسلم دال لي سانتات سيرن توبا مباكي ني سونو ياكار تاي الله يا سلام باخ سونو نجب شيخ مسامبا ني سونو بونتو سيرن توبا دي واخ نيو جليت اك مراتو مروم جليتا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله شيخ عبد الله ميغا خامني موي كورديناتورو فيدراسيون لو كافي نو باي لي نيو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 waye jiite tam délégation yi nga xamné ño wara bayé ko Sénégal jëm Sarsara li sababu jotay bi ñu ngi ziar bax bax di ziar nak bokki talibé ci biir réew mi ak bitim réew ñi seetaan ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bax bax bax a and yeen jotay bi inshallah <laughs> barakallahu Cheikh abdallah euh, mbokki kon jotay ba nga am fi ci kër Serigne Touba gu nekk ci darul manan nga xamné chaque année fi la soxna ci di jëm Sarsara loolu sax ci lañ koy laaje mom balay sa dal motax mu taamu pak bi ak naka la fuy waaje ngir dem sar sara soxna si dañuy gis ne chaque année fi ngay waaje dem sar sara alhamdulilah rabbil alamin ren biñ ko defaatee nuy ñaan sama borom teg ñu ci yoonu euh lan mo sabab nga nga sakku pak bi di fi waaje pour dem sar Sarsara. waaw jërëjëf sëñ Mor Talla am nga laaj dañ nga laaj bu am solo pak bi nag dafa bok ci pak Serigne Touba yi pak bo xamni ne dafa nekk suñu tol ñu di fi ndax yaakar na ni fi 2003 ba léegi bâtiment bo gis mu tabax fi rek. buñ koy liggéey ñoo ko waa axlu ko fi ñokk ko bu dee ca sëkk ba bu dee ca kuulaas ba ba ñu egg ci bâtiment yi pare sëriñ Sidi Moxtaar jox ñu ndigal li ci mu jaar ko ci sëriñ Basiru Abdou Khadir ñu yor nettoyage kër gi ajuma bu jot ñu tase fi di ko bale di ko nettoyé loolu moo waral dëkk kër gi daanaka ñun fi leen dëkk moom boo fi ñëwee di gan boo ñu fekku dinañ la fi fekk waaw looloo tax lépp lu ñuy def fii lañ koy defee bari na nag ay lu baree bari lu xew ci dëkk bi koo xam loo xam ne ku lu waay di def rek fii nga koy defee ndax kër Serigne loolu moo tax ñu def ko fi dalal gan ñi ak xew-xewu diine mu jot ñu def ko fi looloo tax ñu def ko fi tuddee ko kër Touba waaye ñun dañ fee dëkk mën naa ne la ñun fii fi lañ dëkk. <laughs> jërëjëf mu mel ne loolu dafay mel ne buñ ko xoolee tàbbiwaat ci coloré dañ ci dëkkaat tuuti ak yow incha allah Cheikh Abdou mi nga xam ne yow yaay coordonné. daayira federation Andu Café coordination bi nga xamni yang koy def ci magal gi muy euh naka nga waajee ren ak euh, yan condition nga fas tek askan yi nga xamni ñom nga andal pour dem Sarsara. wa jërëjëf sëñ Mor Talla Kane ñu ngi leen di santat baax di leen wa waj tay wi de mom yaakaar na ne ni ñu ko daan defee at yi weesu rek non lañu ko ko wat ren waaye nag. Euh, mbir mu nekk soo ci nekk ci dox rek at mu ne am na am njàng moo tax at mu nekk itam liggéey bi dana am ay jéego yu bees yoo xam ne dañ ko ciy def te jéego yu bees yooyu ñuy def li ñu ci jublu mooy e, facilité mbooloo mi nga xam ne ñooy bàyyee ko fii ci Sénégal war a dem gànnaar dem Sarsara ñu mën a dem dem goo xam ne gu mucc ayib la loolu moo tax ren e, donte xat nañ lool ndax ci biir wéru baraxlu wi ñu ngi won ci ab tournée ci koor gi tam ñu ngi won kër Serigne Touba téwutun nak euh ñu ngi don xalaat ci doxalin wi eh, xam nga né li jitu ci dem Sarsara moy mënul ñak ki dem mu am carte d'identité nationale wala mu am passeport su fekkee tam dafa am auto té bëgg auto bi dem eh, faawu tam auto bi nekk ci turu bopam su nekkul ci turu euh ki nga mom la auto bi nekk ci turam dafay photocopier carte d'identité am yóbbu ko ci police bi ku gën a jege euh, ñu mën ko defal procuration boo xamante ni bi dana tax mu mën a jéggi dem loolu nag teel nañoo sensibiliser képp koo xam ne da ngaa yor oto nga def loolu ba loolu moom ñu ngi en règle incha allahu taala beneen bi ci dooleeku tam mooy nit ñi bindu ci liste yi ndax xam nga ne tam bu fekkee dañuy dem ci convoi euh, dañuy def liste bokkut ak kenn nit ku coobare wu bëgg dem muritani war a def ay formalité am Eh, moom képp yañ koy laaj du bokk ak bu dee convoi bi lay àndal bu dee convoi bi dañuy nekk ci liste liste bi tam eh, dañ ciy bind sa tur bind ci sa sant bind ci sa date de naissance bind ci itam sa numéro carte d'identité nga xam ne loolu moom kuy dem rek war nañ laa tàbbal ci liste boobu loolu moo tax eh, teel def ay communication xamal ko nit ñi am na ñu bari nag xam nañ ko ndax yàgg nañu dem Sarsara waaye du teel ngay continuer di communiquer ak nit ñi ba loolu suñu ko amul 100 tam am nañ ko 99 ñu bind ci liste bi bi ñu bindee ci liste bi ba pare tam ba ñu sisir ko ci machine euh, dañu koy yónnee ci ambassade boole ko benn demande boo xam ne demande bi euh, day nekk procuration sëñ Sidi mu sëñ Mourtala moom mi nga xam ne moom moo woote bis bi nekk gànnaar moom itam defar na procuration bi yónnee ñu ko ñu dem yóbbu ko ci ambassade bi mooy wane ne ñii demande nañ bëgg a dem Mauritanie ba mu ko saytoo tam jox nañu ñaari rendez-vous rendez-vous yëpp dem nañ ñu waxtaan ak ñoom defaree dosi doki document yi wala lépp nag mboolem kuréel yi nga xam dañuy dem Sarsara def nañu effort ba defar nañu seen i liste xam nga ne nag Sarsara bi dafay tombé ak weekend bi ndax xam nga ne suñu jógee ci àjjuma samedi tey say tey la dimanche dem ci guddi kon kon weekend bi duñ ko liggéey ñoom muy samedi ak dimanche moo tax àjjuma ci midi lañu ambassade bi waxoon ne nañ fexe list yëpp ñëw waaye itam def nañ jàmbaar ba ak technologie yi fexe nañ ba liste yëpp dem ci ambassade mu vérifier ko caché ko ba pare joxe recommandation recommandation bi tam ren am na lu ci lu ci bees ndax daan nañu joxe ay recommandation yoo xam ne dañ koy kuréel bu nañu jox la benn recommandation nga xam ne yow ci sa turu la ñuy la ñuy la la ñuy la ñuy sa tur yow mi jiite ci la ñuy def recommandation bi nga xam ne soo demee ci sa responsabilité bopp nga nekk waaye ren nag am na coppeeku ndax ambassadeur bi dane comme mbooloo mépp Sarsara lañ jëm faaw mu am kenn ku diriger convoi bi loolu tam bi ñu discuter kuréel yëpp d'accord nañ ne loolu soxna si jagleel nañ ko ko ndax moo njëkk a jóge fii dem Sarsara ku dem Sarsara moo la fa yóbbu kon nag kuréel yëpp bootu nañ ci ginnaaw soxna maam Issa Mbacké Allou Café ñu jël recommandation bi def ko ci turam te loolu itam dafa mel ni moo waroon na nekk ndax ambassadeur bi mu waxee bi ñu waxee loolu ba pare bañ discuter di xool kuñ ci war a def moom bi mu xoolee machine am dane daaw ak at yu bari yoo xamante ni bii soxna si moom gis naa ko ci recommandation yi kon moom mën na diriger eh, bon kii bi nu tudd ñi war a dem moo tax nag eh, loolu bi ñu ko defee ñoom itam eh, comme ñun ñoo ñoo yor coordination bi mboolem recommandation yi nga xam ne dañ koo war a jox kuréel yi fexe nañ ba ku ne jot sa copie mboolem liste itam fexe nañ ba ku jot sa copie léegi nag ñun ñu boole nag liste yëpp te ñun tam ñooy jiitu suba la ñuy dem su ko defee bu ñu àggee tam list yooyu dañu koy jël ñu jëbal ko commissaire bi mu vérifier ko caché ko incha allah ñu jàll noonu la war a demee commissaire bi tam pour bëgg rek faciliter yoon bi yombu yombu yombu tey dañoo woo mbokku taalibe bi moo xam ne foofu la nekk nga xam ne moom day teeru délégation yi Eh, di len di len di len jappale ci liggey bi tay ci midi la dem ci bureau commissaire bi euh yobbu dossier yi wan ko ko xamal ko ne ko suba ñu ngi ñew inshallah allah ne amul ben problème bu soobee yalla su ñewé li war def lepp dinañ ko def inshallah taala kon nak melna ni lool mom problème benen bi ci ko tam moy dang ko yone yónnee Mauritanie Mauritanie tam dafa am ku yoré ci kurelu Cheikhul Khadim gi nga ko liggéey bi ku yoré eh, liñuy tuddé relation extérieure muy ku ñëw Abdou Assis Diop Abdou Assis Diop momu tam document yooyu nga xam ne moo nekk ambassade te ñu jox ko kuréel yëpp moom itam dañ ko koy yónnee su ko defee moom itam eh, ki nga xam ne moo nekkal Sénégal foofu ca Mauritanie moom itam dañuy ciy def kaseem su ko defee kase yooyu yëpp nag bu dajee day wane ne bu ñu egsee ci frontière bi rek normalement dañoo war a jéggi jàll kon ñun daal lii suñu suñu warugar ci sabablu lépp def nañ ko te lépp tam teg nañ ko ci ay conditions yoo xam ne lépp yoon macha allah jërëjëf euh, mbokk yi topp yaakaar naa ne dégg ngeen euh, kàddu yu am solo yooyu nga xam ne sunu coordinateur Serigne Abdou Lahad Dieye leeral na ko mu mel ne kon ñoom fi nu war a jaar lépp jaar nañ fi di gërëmaat bu baax nag sunu partenaires yi ni ma leen ko waxee léegi rek ndax euh, ñoom it wax dëgg yàlla jàpp nañ ci liggéey bi Touba Univers Touba Univers Manassimane commune bu Touba Touba ca kanam total kër xaadim ñu gërëmaat leen bu baax a baax soxna si gannaaw mbooloo mi nga xam ne ñu ngi bootu sa gannaaw. xanaa di ciy sant yàlla bu baax rek di santaat Serigne Touba Mbacké xam ne lii ba mu daataan ñëw coono bu nekk daj nañ ko ndax liggéey bi moom daanaka commencement bi day metti waaye nag Serigne Touba mooy téye coono bi bàyyi la bànneex bi. moo tax wàcc nañ ci waajtaay yu am solo daal moo tax ba ñu dem a dem ba lii ñëw ñu dem ba ni soxna Maam Isa moo jiite kuréel gépp ndax yaakaar naa ne Sarsara ñun ba ñu fay dem ba ñu fay njëkk a dem booba kenn demagu fa daanaka ñun bokk nañ ci ñëpp njëkk a teg seen tànk ci jigéen bokk nañ ci. jàkka joojee itam bañ koy bañ koy sos bokk nañ ci ñu njëkk a jóge teg lal ak kaala jëkkat suñu alal def ko ca mën naa ne sama alal moo ci njëkk dem kon loolu nag boo ko defee sëñ bi moo lay jàppal boppam nag moo tax ñu egsi ci fii ñu egsi waaye nag coono yu nekk jàkkoonte nañ bu ñu daataan egsi fii nag lu nekk daj nañ ko ah yaakaaruma ko nag nay jafe dina ci am ndax ren waajtaay yi ñu ci war lépp lañ ci war a def rek def nañ ko comme ni ko Cheikh Abdoul Ahad waxee euh, xam nga tubaab moom ay rek la xam te toppatoo nañ këyit yeeg def formalité lépp loo xam ne war nañ koo def rek mu ko tàmbalee ca ambassade ba fii ba ca gouverneur bu Ndar ba commissaire bi nekk root Sénégal lépp kenn ku ci nekk la nga war a def def nga ko ak ay vaccination yi ñu doon laaj ak yëpp yaakaar naa ne ren lañ gën a am yaakaar ne duñ am jafe-jafe donte daaw jafe-jafe yi bëriwut waaye ren yaakaar nañ tamit jafe-jafe yi moom suñu Tuubaa dina ci def taw feex bu baax a baax waaw xam nga Dakar dañ fa am koo xam ne suñu jëwre la soxna Faama Lo ak soxna Ndey Mbàkke ñoom ñoo fa ne mhm. ñoom ñooy coordonné ñu nekk Dakar ñëpp ak ñu nekk Thiès Mbuur ba Gaay ñoom ñooy bokk seen biis bokk seen convoi ñun ñu coordonné Touba ak li ko wër ñu gën a jege rek lañ boole bu ko defee nag Louga la tase suñu tasee Louga nag fa la ñuy daje ñëpp wàcc bu ñu fa ndekkee nag convoi yëpp door a ànd nag jàll continuer Ah, aw aw comme niko sonna ci si rek xam nga liggey mom liggey seigne touba la te ñun ñepp ñoo bokku dëkk bi te soxna si tam comme nima ko doon waxe dafa am doxine bu muy dox doxine bobu ndigalu seigne touba la moy li ngay def rek nga tambulé ci sa bop li nga man euh, so démé nak ba gis ne manam dimbal warna am rek nga talal sa loxo yalla yalla nak boko talalé loxo du jagne yalla moy jël teg mais jaamu yalla bu mu tagat moy jël Eh, nga sant yàlla sant kooka ndax ku santul doomu adama eh, doo sant yàlla ndax yàlla moom li muy def faaw mu jaarale ko ci doomu aadama te Sarsara barabu bu barabu murid yëpp la barabu jullit yëpp la ngir sëriñ ba lam fa amee yemalewu ko ci boppam ak njabootam yemalewu ko tam ci murid yi ko yaakaar ndax wér de moom fa jëlee kim ko njëkk teg ci loxoom du murid kon loolu mooy wane ne sëriñ bi moom eh, umma bi moo ko itteeloon kon nag lépp lu waay def ngir barab boobee. Eh, murid yi am facilité man fa àgg rek liggéeyal nga sëñ Tuubaa te ku liggéey sëñ Tuubaa macha allah jërëjëf euh, sëriñ Abdoul Ahad Dieye jërëjëf soxna maam Issa Mbacké jërëjëf it mbokk yi ñu doon teewlu lii mooy euh, première étape bi nga xam ne ñu ngi koy waajale fii ci kër sëriñ Tuubaa ci Daaru Manaan ngir fas yéene dëkkmal Sarsara yàlla ñu sa suñu borom yóbbu ak jàmm ak salaam nga xam ne lañ doon gërëm bi ñu jógee yoon wi kat kenn ku ci nga ak ñun ci liggéey bi ba jàppandal lu bare bëri ci liggéey bi bokk na ca Touba Universel Touba Univers management nga xam ne ñoom dañuy yëngu ci wàllu ni ma ko waxoon léegi rek tàggat ay ndaw ba wutal leen ay diplôme yoo xam ne dana leen amal njëriñ te loolu askan wi soxla na ko kon nag bokki taali bi ngeen bàyyi leen xel baax a baax ndax it nit ki bu dee loo dugg mu dugg ca war nga xool saytu la mu nekk te la mu nekk nag nekk lu wér lu baax nga ànd ca ak moom euh, commune bu Touba moom dañu leen ko wax euh, muy mairie bi nga xam ne seen taxawaay ci dëkk bi euh, ñoom ñooy saytu lépp dëkk bi kon bu ñu jógee ñu jóg ànd ñun ñoom tamit ñoo ngi leen sant bu baax a baax di sant sëriñ Abdou Lahad Ka mi nga xam ne mooy jëwriñ ji di ñaan sama borom yàlla woyofal yan bi te yombal liggéey bi nekk noonu itam di sant bu baax bokki tubaa ci kanam sëriñ Abibulahi Mbàkke moom sëriñ Fadilu noo ngi koy ñaanal baax ak bokk ko koy jàppale ci liggéey bi yëpp sëriñ Abdou Fatah Dieye leen sant bu baax ak mboolem koo xam ne membre Touba ci kanam la ndax liggéey bi ñoom tamit saytu dëkk bi ak yitte dëkk bi rek moo leen yitteel ba tax na lu dëkk bi soxla ña nga ca loolee noo ngi leen di gërëm baax totaal kër xaadim ñoom it di ay ndaw yoo xam ne tudde gi ñu tudde seen bopp rek kër xaadim rek war naa tax murit is nemmee ko ci bërëb boobee rawat naa nag lañ fay jaay méngoog lool dëkk bi waaye méngoog lool lislaam te itam nag bokk na ci li nga xam ne ku sant ndaw baa nga sant lay boo fa duggee boo génnee ne alhamdulillahi rabbil alamin bakki kon ñooñu la ñu àndal noo ngi leen di gërëm baax a baax insha allahu taala dig daje sarsaara ak seen bokkum taalibe Mor Talla Kan Ndongal Touba jërë ngeen jëf وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد boo rombee route de Mbacké rek di nga gis fu ñu bind boutique Total Kër Xaadim am na lépp eh bijou eh Pape Cheikh yow lay def fii fils maa ngi lay rappelé def ay courses ngir waajal màggal gi. jóge Touba delluwaat ba Dakar pour def ay courses. ah am lépp rek kon yow wéroo xanaa xamoo boutique Total Kër Xaadim. Total Kër Xaadim. Total Kër Xaadim comme supermarché. soxlaatul ngay jóge Touba di dem ba dakaar pour ndugg. wàccal nga xool wàccal wàccal ah, wàccal. ñu bi xaar nga wàcc léegi ma xool li fi am lépp ci ay xeetu baax baax. gis nga bijou fii nag mooy boutique Total Kër Xaadim nekk fii ci route de Mbacké est-ce que xam nga ni lépp loo bëgg wala nga soxla ko muy jaay ci grande surface am na fii ci boutique Total Kër Xaadim waaw supermarché du ko gën a riche fii ci Touba rayon boo dugg nag di nga am li la gënal alimentaire produit d'entretien cosmétique matériel scolaire dañuy jaay ba jaay sac ak fourniture pour élève bi nga xamé ni moy dem école waye ci magal gi li ngeen soxla yépp tul ngeen di dem ba Dakar ndax bu ngeen ñëwé fi ci boutique Total keur khadim di ngeen am li ngeen bëgg dañuy jaay ba jaay ay vaisselle am nañu itam marque bo xamanteni ni sow lañu ko tuddé gis nga poroxaan sow moy sow bi nga xamé ni boko ñamé di nga takamtiku am nañ ko tiakri am nañ ko ba am ko sio sow bu 20 litres nga xamni bu ngeen amé ay bernde fii ngeen di ñëw ngeen jëndee ko ci Touba Total Kër Xaadim muy Poroxaan soow am nañu charcuterie ubbi ci restaurant bu restaurant boo décor ba boo ko gisee macha allah da ngay Amérique wala la ngi France wala la ngi Dakar déedéet yaa ngi fii ci Touba am décor am salle VIP bu baax ñu climatiser ko ba mu sedd waaw réservé pour séni conférence séni réunion séni cérémonie séni pause café séni indagé. lu te soxla rek équipe bu mucc ayib ni ñépp liggéey rek la ñuy def ña nga foofu di leen xaar dañuy jaay fruits di jaay légumes am nañu ba am lépp loo xamee ni soxla nga ko ci boulangerie mën nga koo fekk fii ci boutique Total Kër Xaadim boutique Total Kër Xaadim ak màggal gi mën ngeen ñëw jënd seeni bernde bégal seeni gan Amiol boutique Total Kër ou 33 976 03 39 77 899 45 45 le 76 354 44 44 wala 77 583 17 17 boutique Kër N'est dans la ville sainte de Touba. ay Touba sëriñ Touba liggéeyal ko warteef la ci ñëpp ku ko bëgg liggéeyal ci xam-xam ak yarub ndaw ñi ci wérgu yaram ci néew ji doole yi ci mbedd Touba yi ci leerug Touba ci ndoxum naan mu sell bi si wutal ndaw ñi am xëy dangay ngay sax dàkk ci joxe weer wu nekk 1000 francs CFA maanaam ñaari téeméeri dong. benn bu ne rek. ñaari na fexe ñaari téeméer na ko jëpp dégg ba murid yëpp nañ ko dégg fukki murid saade ak juróom-ñeent yu yu ko yéene te mënuñu ko ma ma joxeel leen maa ngi ñoom ñu ngi nii wajalilaayi maskani tubaaba Ayca weer wi dee bu kenn des bul yem ci yow dong soñal ñëpp bu baax Ayca Mouride Touba ca kanam weer wi dee na. Touba ca kanam Touba univers management commune bu Touba mosquée boutique Total kër Xaadim Sylla et frères ONG Eulo Café ñoo leen doon gunge ci seen ziar Sarsara édition 2022